mooy ay nit dee si ñun ñu nekk si nguur loolu ma metti la ah la faute à qui ñi woote garsa garsa cooki fin mortel combat Tunkara moom moom professeur Tunkara moom bu taxawee am sañ-sañ ñu taxaw mafia politico mafia boobu noonu ñu doon def teg seen deal ngir pour éliminer benn adversaire politique moom mu bokk ñu contribuer si loolu noonu tey ba tey mi ngi am ñàkk ku taxaw ci plateau yi naan day wax. bu baax baax. Tunkara waxna neena depuis 2021 ba léegi ñi nga xamne ñofi ñak seen bakkan yépp Ousmane Sonko moo tax Tunkara mi mo nekkon conseil Macky Sall Abdou Karim Gueye tontu nako nañ leen dem sétani Tunkara pare ñu dem ci Abdou Karim Gueye li nga xamne loolu la ko wax Tunkara ku ñak jom la ga ñu dem sétani vidéo bi. bo xamni man metti na ma trop euh, si juróom-benn at yi ma liggéey moy ay nit dé si ñun ñu nekk ci nguur loolu ma metti la.

lan moo ko jiitu yow laay laaj ki nga xamante ni moom mooy moom mooy kilifa gi. muy président de la république moom moo war a gën a ki nga xamante ni moo njaboote ñëpp. même bu fekkee ni kee taxaw na yow si ca sama njaboot nga bokk boo taxawee ni gat sa gat sa man tamit sax man mi man mi nga xam ne maay kilifa sax ma xaw a. léegi léegi ajara moom dafa taxaw. kaa ma la benn scoop kaa ma may la président Macky Sall. Mhm. bi ñoom Ousmane Sonko waxee gat sa mhm. moom si lay soog a dégg kàddu boobu. Président, ko woon président ni mais luy luy ah mais président sénégalais la gàtt gàtt la aussi. man mii di wax ak yow maa ngi ko doon soog a dégg je léegi. moo olof man. garsa garsa maa ngi ko doon soog man sama univers bi may évoluer yooyu amu wax yooyu kenn du ko wax. président président waa ah, lii de ñii de mooy dañuy defante. gis na ne mais lii ñoom lan lañ leen def ba ñuy defante yoon daf la woo demal nga wuyu yoon waxu la yaa def de daf na ni am na ku la jiiñ yow kaay setal sa der président ne mais lii soxlawul ay garsa garsa demal wuyu rek jàmm ne ñooy. mais est-ce que ba benn moor maanaam benn bakken ba mu rotee rek euh, njiitum réew mi moom ci boppam warul woon wax ni voilà il faut ñu xool nan la ñuy def. ba lii du amaat daal waaw may la beneen scoop. <laughs> ba léegi tontoogoo sama question de Tunkara. dama si man ay scoop laa lay tontu. allez-y. waaw scoop mooy doxal yow tamit chaîne yi. waaye may <laughs> <laughs> euh, bi ay euh, affaire jiiñaate yi dañ ko sif aji saar affaire mm-hmm. mais président dafa laajte wa mom nan lañ mëna a def pour jappalé ko ci affaire bi ah bon ñu ko mais président lu ñu xalaat nan la jappalé xalé bu jigen bi tamit ñom ñaar ay citoyen ba paré yow suñu constitution bi nga xam yow ya ko défendre daf la téré ngay dugg yoon justice président wax ngeen dëkk du dugg seefu justice waru ko. maanaam loolu loolu la leen que sincérité amoon na ci. boo xam nga sincérité nag si biir xol la. Hmm. ay yéeneeg yooyu man mënuma yegg foofu man li ma mën yegg mooy yow danga ma indi pour ma lay jox ay xalaat xalaat yooyu dinaa la wax li ma xalaat li ma xam li ma gëm danga bañ a wàcc yoon. mun dinaa la ko wax. jaajëf gars yi seetaan ngeen Tunkara ba pare léegi dañuy dem déglu ji Abdou Karim Gueye li nga xam ne loolu la tontu Tunkara mais Tunkara fan la nekkoon bi Macky Sall di rey nit ñi bi Macky Sall di tëj nit ñi Tunkara fan la nekkoon ak lan la doon conseil Macky Sall wala moom loolu la doon conseil Macky Sall Macky di rey di tëj moom mu ne Thiel moom loolu la doon conseil te jii ni ñëw mu naan Ousmane Sonko lépp li nga xam ne moom fi xew moom moo ko def mu ne ñi woote woon gassa gassa ñi woote woon mortal combat ba sosal na sax gars ñu dem seetaani Abdou Karim Gueye li nga xamne lolou la tontu tunkara pre ñewat legi legi tunkara mi dama yaakar ne mom day jël quoi gañu den sétane vidéo bi. aduna bi wërngal këpp même musi xamone nañ ni Ousmane Sonko violé wul kenn mais tunkara mom mom professeur tunkara mom bu taxawé am sañ-sañu taxaw né mom dafa taxaw ni Macky Sall léegi non non Adji Sarr tamit ni ñu koy jappalé té ñëpp gis ni plainte Adji Sarr bi. gis nañ ki bind xam nañ kiko bind après xam nañ fi mu jaar ak ay boy xamu an nan ñu di ci expliquer ay jor jaagne ay ministre de l'intérieur njabaru ministre de l'intérieur ak mafia politico mafia boobu noonu ñu doon def teg seen deal ngir pour éliminer benn adversaire politique moom mu bokk ñu contribuer si loolu noonu tey ba tey mi ngi am ñàkk ku jomuk taxaw ci plateau yi naan day wax. ba xam nga dinaa leen boole ci plateau bi. non eh, la. waaw leen boole ci plateau bi yéen ñaar ñii nga li nga wax ni mu tontu si wala li mu waxoon ni mu mu répété waat ko si yow kon dama leen xoola est moom rendre na compte ci. li mu wax ni moom ñi dee ci affaire Adji moom bokk na ci ñi te maa ngi dégg saa buy wax naan dafa am ñu dee Sénégalais dañoo dee président Diomaye nangam président Sonko nangam nangam nangam mais moom dafa contribuer moom bokk na ci ñi rey ci ñi dee ñi boo am ñu mu si rey moom. mais moom fi mu doon waxee ci loolu dafa ni euh, bi ko bi ko bi ko bi ko njiitum réew mi Macky Sall waxee nan la ñuy def pour jàppale. Euh, Ousmane Sonko. waaw dafa jàpp ni comme ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari citoyen sénégalais ñoom ñoo jote

parce que xamuñu loolu amul dañuy marqué peut-être li Sonko au dem ay suite beauté wala la critiqué Ousmane Sonko quoi mais que Ousmane Sonko dafa dem voile Ousmane Sonko Donc est-ce que na ñuy Macky Sall taxaw Sonko Sonko manipuler conseiller ba mu ci dem lo xamanteni tay mort yi di ci kon la fan la wara tok di wax lan la wax. Sonko tamit citoyen sénégalais. <laughs> kon <laughs> la la de dama eh bëgg ñëw rek pour wax la comme ça par exemple moom li mu wax li mu wax démb. <laughs> Euh, ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, par rapport ak li ak li ak li Tunkara wax. Uh-huh. muy euh, Adji Sarr lan moo tax Macky Sall daal dinañu jàppale kële kii ni buñ jàppale kee foofu laay ñëwee pour. expliquer non man dama bëgg mais man dama bëgg nga conscient man dama bëgg nga consciente tuuti. est ce que xool nga bu baax a baax sew sew bi nekk ci communication bi erreur de communication bi ni ko yàlla weeree ci li mu wax est ce que est ce que xool nga loolu Ajara. est ce que xool nga. nan la ñuy def pour jàppale Adji Sarr waaw. parce que jàppale Adji Sarr ci jullit bi Tunkara di woote mooy woo ko ne ko yaa tooñ est-ce que xam nga ni boo demee si les pays arabes la amul ak kii amul amul amul ay viol yi amu fa parce que góor jigéen waruñu jegeen di sax ba viol di am boo fa demee di wax viol euh, islam viol amul si islam parce que man Abdou Karim en tant que musulman aw ma droit teg la loxo maa waruñu joxante loxo ba ñuy wéet ba viol di am mm-hmm. kon c'est pas reconnu viol est-ce que dëgg baax bu ko bu ñu tegee ci charia donc viol c'est pas bu ñu ko tegee ci démocratie république ah xam nañu Ousmane Sonko violewul Adji Sarr bien avant procès am ak li si xew yëpp nañu waxante mu dem Sweet Beauté te est que constitution Sénégal wala code pénal wala wareef wala justice dafa tere kenn mu dem mu dem mu dem maase wala mu mu dem si Baari. donc kon est que raison la bu tax ñu war a mën ne pour éliminer Tunkara wax na ko dégg ngeen li nga xam ne tamit ne Abdou Karim tontu na ko Tunkara balaa ñuy yaatal sama gaay yi leen di like di partager ñoo far sama gaay yi comme ni ngeen koy defee ah, damay njëkk ñëw ci Tunkara Tunkara nag xalaa may dee Tunkara taal ay caméram mu ne jéem a jubbanti quoi nekk ci gouvernement bi jubbanti Ousmane Sonko jubbanti Bassirou Diomaye Faye jubbanti ministre bële ah, Tunkara lan lay jubbanti Tunkara yow fi gënoon dëng yow fa nga jógee yow ci Macky Sall Macky Sall amul lenn loo xam ne def na ko mu jub ci réew mi quoi man dama yaakaar ne Tunkara moom nu mu fa demee noonu comprendre mu Tunkara bi Macky Sall di tëj nit yow lan nga doon conseil ñaata sénégalais la tëj quoi dem jëli doomi jaamur bu liggéey bu wàcc te di si néegam de xaar suba mu dem xëy yaayam yaakaar ko baayam yaakaar ko nga yónni say policier ñu ñëw jàpp ko yeew ko yóbbu yaayam des fa di jooy yow loolu bi muy xew fii nii Tounkara yow lan nga doon conseil mag Sall bi mag Sall di jox nervi yi ay armes di jox police yi ay armes ñu génn di xeex ak Sénégal di rey Sénégal di sànnante ay xeer yow loolu nga ko doon conseil Tounkara lan nga doon conseil mag Sall boobu noonu lan nga ko doon conseil biñ fi tuumaale Ousmane Sonko bugg ko yóbbu prison ñëw bari cadre këram 60 jours tëj ko kasu tàkk yow lan nga doon conseil Macky Sall Tounkara mais tay ji ni nga ne yow da nga ñew quoi pour jubanti man musuma gis ko xamne dafa deung ba pare jubul mom mu ñew naan day jubbanti Tounkara est-ce que yow yaa ngi xalaat quoi Abdou Karim wax na lako da ngay wax wax bu duggal sa bop yow xamone ñun xam nañ affaire nu démé quoi xam nañ fi nga nekkon xam nañ fi nga joggé won ñun wuñu tay quoi yag nañ fi li passé fi la ñu fekk jamono yu saal Sall fi la ñu fekk yaagul démb kese la tey nga ne da ngay ñëw di jéem a jubbanti quoi. man li ma ci gën a métti mooy Tunkara nee na ñi woote woon gatsa gatsa ñi woote woon mortel combat li nga xam ne moo am ci réew mi yëpp ñoom ñoo ko fi indi ko ça veut dire que Ousmane Sonko moo rey nit ñi yow Tunkara loolu nga wax. nga ne conseil nga woon quoi pour président de la république mag Sall réew mi mënoon na am jàmm ci benn fan bu Macky Sall bëggoon jàmm Tunkara nga xam loolu. ci benn fan rek Macky Sall mënoon na régler réew mi coow dootul am xuloo dootul am reyante dootul am mais yéen ngeen daw loolu yéen buggoo buggoo leen jàmm yow mi ko doon conseil yow bu ñu la dégloo tey xam na ni yow li nga doon conseil Macky Sall baaxul ndax nee nga xewoon ci réew mi yëpp Ousmane Sonko la kon yow ça veut dire que da doon wax Macky Sall ne dalal ci kaw Ousmane Sonko yow loolu nga ko doon digal yow moo taxoon muy dal ci kawam xam naa da nga waxoon Macky Sall ne Ousmane Sonko daal. foog ñu rek régler ko benn yoon quoi waaw bu ko defee réew mi am jàmm yow lan loolu nga doon conseil mag Sall moo taxoon Macky Sall li jàpp ne loolu mooy dëgg Macky Sall ay conseils yu baax la amul woon quoi ay conseils yu nitu dëgg la amul woon ay conseil fenkat la amoon ay conseil saytaan yoo xam ne intérêt réew mi taxu leen a jóg seen intérêt poche rek moo leen taxoon a jóg moo taxoon tuuxi duuna yi mu doon dugg yépp yéen tunkara sa genre yi yow ak sa morom yi yéen a si dugal Macky Sall bu pare nag yéen a ngi ni toog ci tele yi di wax bu ñu leen waxee wax leen yéen lan ngeen di wax Tunkara man dama yaakaar ne yow da nga dof quoi pour yow ñun xamuñu quoi li xew ana ministre mag Sall yi ñoo ngi ne ñu tere leen génn lépp ci yow lépp ci yow la jóge quoi ak say morom ndax yéen yéen a doon conseil Macky Sall ay conseil yu bon bu lu ko neex def ministre am yi lu leen neex def yéen conseil yéen lii yépp ak yéen yéen ban njëriñ ngeen amal gouvernement laa xamul quoi yéen ko xaw ma ay ministre du conseil ngeen xaw ma ay ministre yu kon ay yu kon ngeen ndax xamoo leen réew mi muy doxee buggoo leen jaamu ci réew mi moo taxoon chaque jour ngeen di xam rek di sotti yaakaar ne réew noonu lañ koy réglé wu quoi réew foog xol yi jóg muy doog a réglé loolu ngeen jàppoon baax na man ñi ñuy woo moom boo si bokkul moom daf may métti ndax yow affaire bi ci nga bokk waru ñoo woo ministre yi bàyyi la ñi tax ñi ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo bokkoon ci gouvernement Macky Sall yépp bi lii di am yow ci nga bokk buñ leen wooyee fuñ leen woo yow dañ laa war a woo fuñ leen dégloo yow dañ laa war a déglu Abdou Karim Gueye wax na la ko ni nga li xew yépp ci nga bokk yow ci nga bokk ah. waaw nee nga nag danga ko doon conseil lu baax yow muso conseil Macky Sall lu bax yow fi ngay tok rek di wax ci télé ci radio na feex bu bon nga seytaane rambañ nga te mom dama lay xas e ndax li nga li nga jéeñ Ousmane Sonko ci yeen la ci yeen la li xew ci réew mi depp bobu léegi ni yeen la yeen yeena don ray rey nit ñi Tunkara kan mo don ray nit ni ku dul yeen yéen yéen a doon nit ni yeen yeena don tej nit ni tej ni nga ne da ngay génn am looy wax quoi Tounkara yow man dama foog ne yow dañu jàppee daf wala yow lan nga ñu jàppee comme ni ñu def ministre yi tëj leen ci dëkk bi dootuñ génn yow sa passeport dañ ko war a nangu carrément yow ko ci ñi nga xam ne yow dañoo war a tukki yow foog ñu regle say say dossier yàgg say morom ba pare waaw doog leen a bàyyi ngeen xool waaw ndax dañ leen di denc wala dañ leen di bàyyi ngeen dem mais Tounkara balaa may deemu ne dafa bëgg a setal boppam quoi bàyyi ñeneen. lu tax nga bëgg a sa bopp quoi dugal ñoom Sonko yow setoo setoo Tunkara balaa ngay jubal balaa ngay jubanti na jub bu pare loolu dafa leer man Sénégal léegi jaaxal na ma quoi xoolal problème mu Cheikh Omar Diagne bi rek pourtant Cheikh Omar Diagne fi la nekkoon di wax ay affaire yu jumaa ci pale naan projet boobu noonu moo ciy dox quoi pour ñu taxaw tabax foofu noonu jumaa ci biir pale ba lu tax yéen waxoo leen si. lu tax ñu bëri waxuñ ci lu tax jullit yi waxuñ ci murit yeeg tijaan yi nga xam ne ñoo ngi casse instant bii nii lu tax waxuñ ci loolu noonu pour jàpp ci projet boobu noonu pale ba mën a am juma buñ ci jàpp sax ñu génn xam xamal nit ñi ne loolu baax na ci pale bi quoi pourquoi loolu noonu amul quoi man loolu moom a jaaxal lépp lu baax daal yéen doo leen ko partagé. jabaru jabaru Bassirou Diomaye Faye bi discours bi mu def fële ci siin ma ngeen wax ci quoi. lu tax waxoo si wala yeen dal do len wax ci lu bax waaye ci lu bon rek ngeen di wax ci lu bon rek ngeen di wax do len wax ci lu bax nit bu defé lu bax dal ngeen fexé ngeen fexé kaasuul bu defé lu xaw a ngeen yëkëti ko ci kaw Sénégal no lay doxé quoi yeen légui wax len ci Cheikh Omar Diagne juma bi mu bëgg tabax pale do len ci wax ndax arrangé wu len da nga na yaakaar bo len ci waxee rek day yëkëti gratuité Cheikh Omar Diagne moom laal na kër kilifa nii rek yéen ñëpp ngeen jógandoo di jéem a jëfu ci kaw nit ñu ko di jéem am loo leen di teg yéen daal nii ngeen ko nar a jàppee quoi bëggoo leen lu baax wax naa ko benn jour benn journaliste laa dégg mu ne ndaw ñi daal dañoo jóg temb ngir Sénégal baax quoi paa yi ñu ne loolu si dal Sénégal mënul baax nañ continuer nii rek xanaa paa yi ñoom dañoo yaakaar ne ñoom léegi ñu dee quoi. moo tax bëgguñu Sénégal baax bëgguñu Sénégal baax ndaw ñi des ci quoi ci Sénégal bu baax ndax ñoom léegi ñu dem seen yoon loolu moo tax yéen bëgga leen Sénégal baax loolu yëpp soxoor la quoi non gars yi di xataraayu ni ci télé yëpp kenn bëggu ci Sénégal billaay ndax ku ci bëggoon Sénégal dangay ngay fexe liggéeyal say seet yi nga xam ne ñoo ñëw liggéeyal leen loo xam ne bu ñëwee danañ fekk Sénégal rafet Sénégal baax Sénégal nekk dëkku dëgg quoi. mais yéen booy dañuy xeex quoi pour dëkk bi baax yéen ngeen di xeex pour dëkk bi gën a yàqu lu baax daal bëggoo leen si tara moom nay nay ñaaw quoi nay bon chaque jour ngeen di am loo leen di critiquer bëggoo leen kuy jéem a baaxal bëggoo leen kuy jéem a jubal quoi jub jubal jubanti bi moo leen di déranger mais forcément loolu day am incha allah bàyyi leen bu Bassirou Diomaye Faye régler lu muy régler rek bu pare. gëm naa ne dootul yàgg ci semaine bi lañu waxoon sàcc yëpp danañ leen teg si yoon ku fi sàcc alalu jàmbur dangeen ko génne ku fi luubal alalu askan bi dangeen ko génne nii ngeen ko nar a jàppee quoi ba gaj toog xaar loolu ngeen di def par la force bu ñu lijjanti seen dossier yi ba pare mais am fii lu na wee nga nar a daw bàyyi ko fi quoi may wax mu naan match bi laa doon seetaan boo demoon seetaan match bi daw doo ñëwaat. xanaa nit ñi moom amuñu xel da ngeen a yaakaar ne mën ngeen nax nit ñi non loolu di si dal de am na ñoo xam ne daw nañ dem kenn gisatu leen man ñi ma dégg ñuy mbow nii yëpp mooy loolu man li ma ci gën a neex mooy gars yi dañ doon yàkkamti discours Amadou Ba yaakaar day ñëw dal ci kaw Ousmane Sonko wala dal ci kaw Basirou Diomaye Faye mais heureusement pour moom malheureusement pour yéen ñi nga xam ne yéen ay suqu APR yi li ngeen foogoon ne Amadou Ba loolu lay ñëwee ñëwewul noonu Amadou Ba xam na bu baax a baax lan mooy état xam na bu baax a baax lan lay doxal xam na bu baax a baax lu muy def xam na ne fii 4 mois rek réew mënuñ ko cee defar quoi 4 mois xanaa booy defar ci benn néeg sax benn néeg xanaa mënoo ko defar ci 4 mois nga may wax waxi réew réew nan nga koy defaree ci 4 mois Amadou Ba amul lum critiquer amul lu mu wax xam na ni gaa ngi liggéey nañ leen muñal ñu liggéey Amadou Ba loolu la leen wax bu njëkk tam loolu la leen waxoon ñii nañ leen muñal ñu liggéey liggéey nag ak wax ju bëri mënul ànd. gars yi dañ doon génn chaque jour waa APR yi mooy suq APR yi rek ak booy dof yi Amadou Ba le lay wax Amadou Ba le lay wax mais Amadou Ba wax na Amadou Ba lu wax yéen ku leen laaj sax xamoo leen li amadu wax am lu mu wax samay gars yi. li ko doon séentu dale na njuuy dale na njuuy da ngeen yaakaaroon ne day ñëw dal ci kaw Bassirou Diomaye Faye mais léegi après ana retour bi yéen maa ngi leen doon xaar ba ba léegi gisuma kenn gën si yéen naan Amadou Ba li mu wax Amadou da ngeen yaakaar ne Amadou Ba gaynde la Amadou Ba du gaynde muus la la leen leer na Amadou muus la tey ndax ñoom xamante nañ quoi xamante nañ xamante nañ dof yi rek ñoo fi nekk di wax suq yi rek ñoo fi nekk di wax ñi nga xam ne xamuñu tus ñoom Bougane Gueye Dany booy yi nga xam ne ñoo ngi ci biir APR ay ñoo Omar soow suq yi rek mais ñi nekk ji xoolu APR dëgg duñ génn wax de wala buñ waxee moom mooy loolu ñoom xam nañ seen bopp ñoom xam nañ li def yéen yéen a comprendre ni mu demee quoi ñoom tunkare yi ñooy génn di naan dañuy jéem a jubbanti de. ñom ñoo gëna fini dëng fi ni naan dañuy gëna naan dañuy gën di jéem jubanti yow jubóo di yu yubandil sa kër bu pare moy loolu sa bay mak sal mo gëna dëng fi ni mo tax moom moo ngi ne ciel lu muy wax amul lu mu wax Amadou bo wax na dem lan la wax kenn seen mënu ma wax ne <laughs> li Amadou wax ndax Amadou Ba bi yépp sétal bopam rek la nee nañ def li nee nañ maa def lii loolu yëpp defuma ko setal boppam rek la def waaw fii ngeen ko doon xaaree nag daf leen a njuuy quoi noonu la fa demee mais yéen yéen a xamul rek mais ministre yi <laughs> duñ wax de Antoine moom biñ daanoo ba léegi gisuma ko sax ba koy dégg dama ko seenul fenn sax ba koy dégg waaw mais El Hadj bi nga xam ne moo nekkoon géwélu APR sax déggatuma ko fenn moom tamit ma mbay ñaa dem na yoonam gisatuma ko fenn <laughs> sama yi yéen yi comprendre rek yéen ay génn di wax bëggee naa leen bu baax a baax sama gars ba ci beneen vidéo abonné leen nag di like vidéo bi di partager jaajëf sama gars yi